show show show show ah show góor si si si si si si si jabar si alhamdulilah si jërëjëf si jërëjëf boy mbay mbay suñu papa bi mbay mbay mbay affaire bi yow la kenn du ko dindi waaw waaw eh kenn du ko dindi déedéet eh kenn du ko dindi Kouthia affaire bi yow la kenn du ko dindi waaw waaw merci eh, merci merci merci merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbay suñu papa ngi na le eh, moom dëkk bi mu nekk nii ba ci dem la jóge France waaw ñaata doomu aadama tubloo. waaw Cheikh tubaab laa wax de. waaw waaw. am na yëxoot xam nga yëxoot. waaw yëxoot mooy. imam si imam si kaay nuñu ko. si si si jërëjëf si jërëjëf imam jërëjëf imam jërëjëf. yaa ngi jubloo nit ñi waaw waaw jërëjëf si. jërëjëf jërëjëf imam kontaan amin amin amin yaa rabbal alamin amin waay amin amin si. sa paala. sama sëriñ la daa bëgg. Ah. <laughs> mbay. mbay. nova bii nga xam ne mooy nova fraise. yaa na ma carrément dafay neexal kër yi. nee naa xam nga lu lu yàq. nee ko moom. lu nëb waaw ah? ak lu bees. lu bees day neex <laughs> day neex moom mooy fraise. moom mooy fraise fruit boo xam ne bu nëbee neex. <laughs> bu beesee neex. waaw bu bu nëbee neex bu beesee waaw cëm mbay. am na bu ci tegu de bii moom mooy in bii nag moom mooy <laughs> bubla <laughs> bi bii mooy <laughs> naturel bi bii mooy fraîcheur bi infusion naturelle de la ah, nature ah, neex nag ah, mbay xam nga kii ci la neex mbay boo sangoo ba pare ci douche ba génn pompe ko gi on wan ko ginnaaw kii laa tuddee wan ko ginnaaw wan ko ginaaw mais fi mu Sénégal ah. ñëpp lavanda bi lavanda. parce que lavanda dugg bii mooy bu Bijou Ndiaye. eh Bijou Ndiaye yeewu leen. bi nee koy daanal. Eh eh, eh, eh eh bu bu ko bu ko bu bu mu demoon seen plateau de xet bi dama siy siis. très bien xet bi dama siy siis. très bien mbay. waaw bii mooy huldu bi. xuldo ngi nii. waaw xuldo ngi nii ak bi. bu ñu moom day indi problème ci kër gi. Ah, parce que ñaari xet yoo xam ne. Ah. bu ñu tasee kër gi day neex ba nga xam ne. yow bii moom sa bos. maa ko moom waaw yow sa. waaw waaw waaw naari oriental. dëkk waa oriental. oriental ñi nga xam ni. bii nii naari da gis ñu koy def ni sax gis nga su soo amee or nii. soo ko si laalee or bi day nes na si. non mbay kii pour chambre la. waaw spécialement pour chambre damay no non non non ñoom pour chambre lañ ko def. Mm. pour noyyi ci chambre. parce que loolu moo ko tax a jóg. baxuur les impressions de la nature pour néeg la mbay. bii mooy sa diggante ki nga xam ne da nga ko te ci néeg bësal. bësal bësal mbay. voilà eh, xoolal xoolal xoolal nu muy neexee. xoolal xet bi nu muy neexee. très bien mbay bi ci tegu mooy intense. waaw lu sëcc. lu sëcc néeg bu xeeñ néeg bu yàgg néeg bu tëju lu yàgg oh. oh. mbay ah. xam nga sànq na ma sama bureau climatiseur bi ñëw na waaw après <laughs> waaw clim bi ñëw na su ko waa ji monté xet bi moo fa des parce que intense waaw di eh, <laughs> les énergie <laughs> céréales. céréales. céréales. très bien mbay. blé. non blé blé. blé. lait. blé lait. et banane. et banane très bien mbay blé lait. non kenn du wax waxal bële. sëñ xale yi maaxul ma la xale yi xale yi ma jox naan bële de. moo tax wax jooju waaye waaye waaye. Ah. li xamul leen dara waxal bële. bële lee. lee waaw kay wax bële lee. lee eh bu leen ma topp naan ma bële lee. <laughs> bële et lee. bële et lee ma ko wax su ko yàggee. mbay mbay ne lee et miel. waaw lee et miel dafa mel ne soo taxee jabar rek. ah ngeen dem li dem miel yàlla xam kon yow mbay fan yi kan nga war a takk pour dem li dem miel. si temps ku si temps. mi ngi ne toog. <laughs> kan la <laughs> ah kii nga takk ah moom nga takk kañ. le dix bi rek. le foo ko takkee. ah fii fii après ñu dem lune de miel. yéen ñaar kon seen lune de miel dina neex xam nga muy neex. mbay li nga soxla ci lune de miel ngay am. dinga am énergie. waaw di nga am protéine. waaw am calcium am fer. Ah, ah, ah buy nekk non non euh, euh, bi ñuy dem lune de miel bii xam nga géej gi xam nga. dañuy soxla bu am waaw moom ngeen am moom mooy bi mooy blé lait et miel. waaw mais boo ko lekkee ba pare. waaw lii la lay jox dina am énergie. waaw di nga am calcium am protéine am fer. waaw mais nag sa sa kër lay doon de bu ko jox du ko parce que li nga am moom bu ko amee. waaw. bu <laughs> eh, eh, eh, nekk li na miel de li <laughs> na guerre lay doon. <laughs> mbay est-ce que xam na lii vitamine rek la. waaw moo tax l'écran indi ko pour xale yi ndaw gis nga nag gis nga ñi ñi dem màggali. waaw lii mooy maanaam goûter. waaw goûter waaw kay. day xoolal day ba pare lekk bi yàqu. yow yaa nga dem màggal de. de. kopp meew mbay. waaw. Madaar yaa na ma carrément des. xoolal intégral pour màggal gi rek. intégral intégral. intégral pour màggal gi. mooy Madaar bi. waaw Madaar bi Madaar Bakhour. fu jaar nag comme sa sa gémmañ moom dafa xaw a xool kii ba tey dañ na wala maye naa la fi kees <laughs> ah ñaa joyeux anniversaire waaye sa xarit sa sa Seynabou ban Seynabou mag la waaw mais suba ñëwagul suba ñëwagul Bijou sama anniversaire bi wuy ma bébé service joyeux anniversaire à Bijou mais mbay ah. kon da ngay bàyyi ñaaña dem ci nabu waaw bàyyi naa ñaaña dama ci nabu nabu nga maasal nag waaw eh, eh, bàyyi ñaaña bàyyi naa la nabu caan boo ko gisee gis nga ñaaña parce que tekki ne rusi moom bu ma la gisee man man bi ngay wax téléphone rek yaa sentir ni nga toll <laughs> yow yow yow adna mu solo ñaaña ñaaña looy daw bay daanu ñaaña mbay xartu ñanga lan daw bay daanu wuy ma ah? Fatima naan ma fàtte ngeen moom nekk fi xamul ne pare nañ ci mera bu yàgg maa ngi koy wax boobu bu jox tooñ jaara fa la nekk wuy ma kii dafa am problème oto bi da ko fa baax mera wax yow nekkoo fi yow tey yaa ngi jàpp ne tey la vendredi tey la jeudi yow Fatima madame Traoré da sa bopp bi dafa tëlbatiku wuy ma oto bi da ko fay baax ban oto oto oto oto bi bi ñu waxee mera bu yàgg dafa yàgg. ba ñu waxee mera day tey waaw yow xam nga ni lañuy jaar. ni ni lay jaar ne yooyu baaxul. dafa xelam sa fi nekkul dafa. <laughs> waaw mais Mbaye. au na bu caan. Nabou Thiam moom nekk moom. moom mu ngi mu ngi fële mu ngi dëkk Kaolack. Ah. waaw. waaw waaw waaw baax na parce que bàyyi naa ko ki ma doon kooku moom ñaañu moom bàyyi naa ko moom. Mbaye Séeri Nabou Séeri Nabou. mooy Serigne Nabou Nabou Thiam Nabou Thiam ay Nabou Thiam Nabou ay Nabou Thiam borom Kaolack yow Nabou Thiam ay Serigne Nabou ay Nabou Thiam ay Serigne Nabou Serigne Nabou Nabou Thiam Nabou Thiam yow Nabou Thiam Serigne Nabou Thiam Serigne Nabou Thiam Serigne Nabou Thiam Serigne Nabou Thiam إن également bu mag di ànd ak yéen seen émission Kouthia Show ka nekk ci réalisation ba di Papa Samba Thiam fekkoo madame Traoré Fatima ki nga xam ne nag moo nekk ci son bi di ingénieur son di Pape Silla seen jili benn jëm ñaar Camara ñu ngi nga xam ne mooy tonton Pierre ci jàppandal bi sponsor bu leen gërëmee ba pare émission tey bi nag ñu nga xam ne mooy bi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi yàlla ko yàlla defal jàmm ne da ko bandum an ko xaal pulaar ñu ko <laughs> ñu ko xaal pulaar comme ñu am mbégte ah ñu am mbégte kontaan mag di ziar kilifa diine yi nga xam ne ñoo et la bénédiction de tous les khalifes généraux Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides Serigne Mbaye Sy Mansour khalife général des Baye euh, des Euh, Tidiane Serigne Mame Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layen Serigne Mame Bou Mouhamed Kounta xalif général des Khadre Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa bu Médina Baye Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif omarien ak doomam Cheikh Omar ambassadeur de la paix et les conflits en Afrique moo ci dox tànku jàmm Cheikh Ahmed Tidiane Ba euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ah, Khalifa Niass ca Léona Niassène Chérif Bounama Aydara xalif bu Nimzaat ak Serigne Mohamed Lamine Ngom nekk ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass di ziar tamit Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu maam Cheikh Mbaye bu Mansour Cissé xalif bu Pire ak Serigne maam Abdou Dramé xalif bu Nand Serigne Abdoul euh, Serigne maam Abdou Euh, Cissé xalif bu Jamal Cerno Abdourahmane Bari borom Bogol xalif général bu Bogol sama papa di Waliou Kamin Cerno Madani Tall ak euh, xalif bu Cerno Muntaga Tall euh, njabootu Cheikh Moussa Camara ak Cheikh Moussa Cissé Ndiambé borom Daaru nekk ca Passy sëriñ Mounirou Jigéen xale bu sëriñ euh, njabootu amul baro jigéen yëpp ñu leen di ziar may ziar sama papa personnellement di sëriñ Abo Mbacke xale bu sëriñ Fallou Mbacke yal na ko fan yu gudd ak wér ci Zahir ak ci Batin jëwriñ Moustapha Sène ziar nañ ko am mbégte ci Cerno euh, Alaaji Cerno Sama Sa mora bi nekk ca Fouta yal na ko yàlla defal jàmm Cerno Abdourahmane Bari borom Bogol xalif général Bogol du ma tàyyi di ko wax wàllu kaamil baa noonu waaye di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Cerno Alpha Thierno Abdourahmane Bari nuyu nañ tamit Thierno Bokar Alpha Ba war a war a fonde waaliyu kaamin bi ziar nañ ko Thierno Mamadou Hadama Gaye nekk ca ñànk idi Alaaji Mahamadou Gaye ca Mbour Tefes kooku nag kilifa la ci ñun ñu ko ñaanal fan bu gudd ak wér de la part de Kouthia ak Papa Samba Thiam mi nga xam ne nag taalibeem la Alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamin ak sama yaay soxna Ajaratu Bousso Cissé la grande commerçante ca ci HLM Angle Mousse Serigne Mame Sougou Wadane ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram moom ne moo séexal papay Awkara di yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram dëgëral tamit ay euh, euh, yokk ko wér gu yaram dëgëral tamit lépp loo xam ne nag euh, jàmm la rek yàlla may ko ko mu gën sax ci moom ñuy am mbégte contentement ci Alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ci parce que sama baay la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Habib Gueye mu xadamu sëñ Mansour Sylla ak Serigne Abdou Karim Mbacké borom pale ba ci nit ñi ko Modou Fleur dañuy teg nuyoo bi ci Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé ak sœur yu nekk ci paroisse yi ak ci église yi na yàlla may jàmm saxal leen ci jàmm waaye tamit may leen fan bu gudd bu ànd ak wér ci barke Yesu Christa borom xel mu sell mi nuyu nañ bu baax kay maître Fatima Fall di responsable politique nekk ca Ndar yéen waa Ndar nag bu ñu màggalee ba pare incha allah groupe Kouthia Show dana ñëw ca Ndar ca bato ba def fa nag semaine lëndëm ñaari at après dañuy delluwaat foofu nga xam ne moom mooy Ndar bu soobee yàlla Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak suñu yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed si Al Maktoum ñu ngi koy ziar waaye tamit di ñaanal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ko yàlla may Euh, leer yokk leeram may ko tamit foofu nga xam ne la nekk ci àddina jàmm ju sax ndax àddina jàmm rek moo fa sax ñuy ñaan tamit euh, képp koo xam ne kilifa diina te dudu àdduna yàlla na yàlla xara ci àddina gën a kawe Serif Moustapha Touré euh, bu Serigne Fallou Touré ci Medina Salaam Daaru Salaam Daaru Rilwan ak Medina Salaam ñetti dëkk yi sama papa fa toog di alaaji Basiru Ndaw xalif bu Daaru Salaam sama baay alaaji Basiru Touré xalif bu Daaru Rilwan ak sama baay alaaji Xayri Touré xalif bu Daaru Salaam ñu ngi koy nuyu Medina Salaam ñu ngi koy nuyu ak njabootu Serigne Fallou Touré yëpp alaaji Ahmadou Touré mooy xalifam ñuy nuyu tamit alaaji Habibu Touré nekk ca montagne ba ca rafat di raq ci Serigne Fallou Touré ziar nañ leen bu wér ak góor gi Ablaye Niang nekk ca Ndar di jàng katu xasaayit yal na yàlla dëgëral ay cëram may ko fan bu gudd ak wér gu yaram imam ratib Thierno Aliou Maska nekk ca Banjul ak sama yaay ajaratu Daaro Cissé nuyu nañ ko bu baax alaaji alaaji Ibrahima Mbaye xalilu laa ñu ngi koy ziar alaaji Alam Mbaye bëgg ma xal démba woona ma nee na mu ngi leen di ñaanal ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak sëriñ Góora Sëy serviteur de l'islam Pape Amad Ndiaye noddukat si jumaa sëriñ ñu ngi koy ziar sëriñ Cheikh Ndigal Sène nekk ca dëkk bu ñu naan Ñambur Sëñ Ablaye Sarr nañuy wax na mu fëggal ñu néegu sëñ bi ziara ni ko di ko yóbbante suñu nuyoo imam Moustapha Sall président du forum intellectuel africain ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram moom nag mbootaayu imam yi nekk ci Afrique moo leen jiite ñi nga xam ne nag jàmm rek moo leen tax a jóg yal na yàlla saxal si jàmm jooju sëriñ Atax Mbàkke Falilu ñu ngi koy ziar waaye tamit ziar sëriñ Jili Abdou Wudut Mbàkke nekk ci Touba si Cité Fadia ziar nañ ko góor gi Samba Ndiaye imam ci Ziguinchor représentant xalif général des Tidianes depuis 1975 moo ko fa toogal ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Cerno Amadou Si nekk ci unité 7 ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit sama yaay soxna Ayda Si ci Tiwaawan yal na yàlla guddal fanam soxna Ayda Si ci Tiwaawan yal na yàlla guddal fanam soxna Ayda Si ci Tiwaawan yal na yàlla guddal fanam yéen ñi wax amin seen jigéen yi nekk ak yéen yal na yàlla guddal seen tàmbale ko sama waajur bu jigéen ak seen waajuru jigéen suñu waajur yu góor ak yu jigéen ak suñu njaboot yëpp yal na yàlla sàmm di leen ñaan fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di nuyu sëriñ Abdou Latif Diène xalif bu maam maam maam Cheikh Issa Diène borom Diène Lagan ñu ngi koy ziar di ziar tamit alaaji Cerno Baabu Nuuru li xalif bu daare xale bi am mbégte contentement ci alaaji Mouhamadou Sall xalif bu Dimisqa ziar nañu kilifa diine yii yëpp yii ma tudd fii yëpp yal na leen yàlla defal jàmm yàlla may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yal na yàlla xara ci àddina gën a kawe ñi nga xam ne nag ñu ngi ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu toog ci jotaayu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne nag ñu ngi ci euh, ci jotaayu euh, suñu euh, suñu suñu yonent Yesu Christa borom xel mu sell mi yàlla na yàlla boole ñun ñëpp ñu toog ci jotaay bi nga xam ne moo gën a kawe ba yàlla taag ak njabootam ñëpp yàlla atte ñu ci atte bu leer am yërmande ñun ñu ñëpp bu kenn kenn kenn dem safara ñëpp dem àjjana yàlla mën na ko yàlla na yàlla jërëm jaam yëpp yàlla na yàlla baal jaam yëpp ñu ñëpp ñu bëgg mbokk yi mbokk yi mbokk yi ñetti yoon maître El Hadj Diouf nee na li tax ñu tëj Assane Diouf ba dugal ko ci kaso bi du ay saaga du ay wax du ñaaw nee na Cissé Lo warul fanaan ci mbedd bi nee na Cissé Lo warul fanaan këram war naa fekke ji Assane Diouf parce que li Assane Diouf def rek na Cissé def ndax saaga saaga la amul nag lenn loo xam ne nag moom la ñuy firndee ne lii rek mooy saaga leen du saaga ñu seeti maître El Hadj Diouf mi taxaw taxaw tànk ne Cissé Lo waru fekk fanaan këram ayca. waaw ah, jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla defal jàmm kontaan naa kontaan naa gis naa waaye yéen fekk rek sagal ma yàlla yàlla defal ma tax a jóg ñaar la du loo xam ne dafa jot pour ma lijjanti ko mooy Assane Diouf dafa nekk États-Unis toog di saaga ñëpp xam nañ ne da doon saaga ba ay saaga tax ñu jëlee ko fee nga xam ne mooy États-Unis indi ko fii te saaga yi xam ne moo doon wax. am na saaga boo xam ne moo ci gënoon fës te ñëpp xam nañ ne saaga boobu ci gënoon fës moom la doon daanalee ay saagam xam ngeen ko Assane Diouf mboolem saaga yu musa saaga am na ci saaga boo xam ne moo ci gënoon fës te saaga boo nga xam ne moo ci gënoon fës bokk na ci li taxoon ñu dem jëli ko pour indi ko fii ci kaso bi waaw waaw dama ne saaga boobu Cissé Lo saaga na ko Sonko ba ñëpp dégg ko léegi normalement kuy saaga États-Unis ñu jëlee la États-Unis indi Sénégal ma ne kuy saaga ci Sénégal gii ki ngay saaga nekk Sénégal lu ñu xaar pour yóbbu la kaso bi. Eh, moo dama leen moo dama leen moo dama leen Macky Sall Macky Sall am na loo xam ne war waru ko nangu waaye tamit justice bi am na loo xam ne tamit waruñu ko nangu ndax saaga saaga nit ki. Sénégal yëpp toog nga jaar fi saaga gën a ñaawe te ko ci der kii te nekk ci réew mi ñu lay gis di la xam Assane Diouf nekk ba États-Unis di saaga nga jëli ko paasal ko avion indi ko waaye dama ne eh saaga saaga la de. dama ne saaga saaga la toog di saaga ñu indi ko fii tëj ko ndax saaga si saloo toog si salon di saaga ki muy saaga ngi Sénégal gi di yeewandoo ak moom. te li Assane Diouf doon saaga saaga bi gën a fës moom la Cissé jël saaga ko Sonko. ah dama ne Macky dama ne Macky Macky Cissé Lô bu doxee ci mbedd bi yow yaa ko bàyyi muy dox waaye Cissé Lô normalement dafa war a fekk Assane Diouf ñoom ñaar ci kaso bi. dama ne dama ne saaga ci potu saaga la xeelu saaga la loi bi dafa ne saaga. muy saaga ci ndey ci baay ak saaga boo xam ne amul ndey ak baay mu nekk saaga dama ne loi da koy aaye. te man dinaa dem CEDEAO wax leen ko ne leen seen président bu assemblée nationale bu CEDEAO saaga kat numéro un la ndax numéro un mu ngi ci kaso bi kon léegi numéro un bi moo nekk ci kaso bi waaye numéro un bi léegi nekk ci mbedd mi. dama ne dama ne man dama ñëw taxaw en tant que avocat bu Sonko ndax képp koy saaga jël ma kon avocat man danaa la défendre ñi nga xam ne ñooy saaga ci internet bi te kenn gisu leen dama ne loi bi mu leen topp parce que dañ naan ki may saaga ci internet bi bu ma ko gisoon du fanaan ci mbedd bi waaye dama ne léegi léegi Cissé Lo nekk président CEDEAO ci maanaam député nekk vice président assemblée nationale topp ci Moustapha Niasse dama ne moo dàq saag ñëpp la saaga saaga na Sonko saaga ku mag Sonko waaye léegi pourquoi koy bàyyi mu nekk ci réew mi toog du yoon dama ne loolu du yoon loolu du yoon teg ko fenn parce que magam jëm toog ci salon wax diw ñu ne naam mu dagg teg ko ci deram dama ne loolu du yoon Macky Sall yaa ngi seetaan loo xam ne bu raamee jëm ci kaw du baax parce dëkk bi du dëkk saagante wax dëgg rek yàlla tax man bu doon ma la ku ma saaga ma fayu ndax boo fayoo loi day taxaw bu fekkee da leen yóbbu yoon ngeen attante dama ne ah, ah. Macky wool si solo wax ak moom bu jaaraatee ci li mu jaaroon dama ne ñun dañuy autosaisir procureur de la république ndax ah, saaga saaga la ay saaga du ma tax ak ba ma saaga saaga saaga la mais Cissé Lo mooy kan bañ koy bàyyi muy saaga barke dem ma dégg ki nga xam ne mooy Thérèse Faye toog ci rajo bi ak télé bi waaw Cissé Lo nii la mel dafa tàng nañ ko bàyyi noonu waaye dama ne bu tàngee lu am moo gën a tàng juróom-ñaari yoon. bu leen ko yëngal waay saaga saaga la. Eh! saaga. dafa saaga ku daa saaga jógee nag ci nga xam ne moomooy mooy maître El Hadj Diouf euh, dañuy ñëw nag ci nga xam ne moom mooy Karim Wade waaye nag mbokk yi ñuy leen di yëgal nag am nañ mbégte kontaanama bu mag di nuyu Serigne Saliou Jurul euh, Mbaye taalibe Serigne Saliou Mbacké euh, ndongo tarbiyu borom def gis président mouvement njëriñu réew mi di ko gërëm di ko sant nee na nag mu ngi wàcce mu ngi waajal li nga xam ne mooy wàccaayu màggal gi te bu ko waxee rek incha allah dana ko def ndax sëriñ Saaliw jurul mbaay nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ku yàlla baaxal la te koo xam ne màggal gi jaral na ko lu ne moo taxit nag ma ngay préparé wàccaay bi ci kër kilifa bu ne mu gàtt wàcc fa gàtt war a mu fexe daal ba kenn ku nekk nag sa wàccaay danga ko jot ba mu sëkk kon euh, euh, mbaay ñu ngi lay ñaanal ñaanal yàlla teg ci yoonu jàmm ba nga dikk ak jàmm ba lépp daanee leer sous l'égide du khalife général de la famille omarienne Thierno euh, Bachir Tall le daayira soxna Adama Aïssa de France sous la présidence effective de Thierno Thierno Nasirou Tall mooy teewe bés boobu soxna Ami Tall mooy yëgal ñëpp nag te xam ngeen ne soxna Ami Tall ibnu Thierno Bachir Tall doomu ci euh, Thierno Bachir la mooy invité taalibe yëpp ci ziara bu mag bi nga xam ne mu ngi am le 20 octobre foofu ca Paris salle des associations ca 10 rue de terre ñuy wax nag dafa ñëpp teew ndax bés bu am solo la waaye li a am solo tamit euh, mbokk yi mooy salaatul tasbiya bi nga xam ne 17e anniversaire bi de salaatul tasbiya mu Euh, ca commune de Sèr le premier euh, novembre incha allah 2018 départ bi mu ngi départ fii ci Cambérène ci Dakar fas yéene egg nag incha euh, ca ëllëg sa bu ñu xëyee nag daal di def nag li nga xam ne moom mooy lim bi te lim bi dafa am solo 6666 astafurlah 6666 yaa latifu 6666 salaatul ala nabi bu ñu ko tënkee nag ñaan ci suñu soxla yàlla ñu jàppale ba lépp ñu ko ñaanal lu ñu ñaan jëm ci ñun ak njaboot gi yàlla dina ko def mu antu moo taxit nag ñu ci woo ñëpp nag. na ci ñëpp ñëw ndax ba su am solo boo xam ne wax dëgg yàlla bii mooy 17e anniversaire te nag euh, salaatul tasbih ki koy jiite mooy suñu baay di kilifa gu mag di Amir Issa Niang yal yàlla guddal fanam ba yàlla may ñun ñëpp ñu teew bés boobu sama jigéen nag di euh, Mino Diop borom Nantes samedi le 10 novembre dafay def la nuit di bassin foofu ca Nantes te ba bés boobu dama ko dara jëlee nee na Abou Bilal yow dama bëgg nga ñëw foofu Nantes ñu def la citoyen d'honneur boobaa nga xam ne dëgg la na Euh, Baye Demba di doomam ak Waly Seck di doomam ay invité nañu Fanta Dembélé artiste dina fa ñëw ak Mariama Vieux ah ñoom Faya Bondema ñoom Ndeye Awa Diop invité d'honneur Koutia Sidi jaañ ak Eva bés bu am solo la waa Nantes nag kenn nelawatul ña ngay préparé le 10 bi nga xam ne nag foofu lay amee ca Nantes mbokk yi mbokk yi diggante ma dikke ñaa waaw ak Abdoulaye Wade yàqu na du leer laa leen wax yàqu yàqu na de yàqu na de yàqu na yàqu kenn mëntu ko defar dama ne yàqu na kaay leen déglu doom ji li doom ji wax ci li li Karim Wade wax ci ngeen xam ne diggante Madické Niang ak ak ak ak ak Ablaye Wade c'est fini jeex na takk takk takk takk takk preuve baa ngi di nuyu li ma bëgg ngeen xam ko muy doom ja ndey ja doom ja baay bi dama ne bii mooy suma wax bu mujj dootu leen déggaat ma wax loo xam ne dangeen di toog di xaate tegu leen seen bët parce que chaque jour ma ne Karim day ñëw chaque weer ñu ne Karim day ñëw te gisugu leen Karim léegi bu fekkee man dama leen di xaarloo te naruma ñëw dama leen di perte loo seen temps li ma leen di wax nag tey ngeen jàpp ko man ma leen wax ne ni ñuy séentoo weeru koor bi di ko séentoo weer bi pour mun a julli jàpp leen ne bu soobee yàlla le premier novembre dina ma fekk Sénégal. mani mani mani sama papa sama papa wax ne que man maay nekk candidat kenn waxul nekk candidat ku dul man parce sama papa moom moo wax ne man candidat la sama papa moo bëgg ma nekk candidat te ñu tënk ko ba ñëpp d'accord tonton ma dikkee dem ber daram daram boo mu ber du am dara ma ne Sonko woote na ak suma papa paas ma suma papa suma papa paas ma Sonko man ak Sonko ñu ngi préparé loo xam ne bés bu ma ñëwee Sénégal ngeen xam ne ngeen xam ne Karim Wade ñëw na. dama dama ne dama ko wax sax mu commencé indi ay coow waaye màggal gi Tuuba lay màggali waaye ma xamal leen ñaar Macky Sall ak gouvernement am nee nañu suma ñëwee damay fanaani rëbës kon koy rëbës keroog dina rëb ba ñu xam ne rëb na dama ne ki jéem ak ki duñu benn parce que kii day jéem te kii da ko man te doomu gaynde gaynde lay doon ba ba muy doon gaynde sama papa nee bul ragal bul daw bul yox-yoxi kaso du dara te xam naa kaso ñam naa ko kon duma tapet ku yaakaar ne nag da yaakaar ne soo waxee ne su ma danga may tëj damay arrière yaa ngi nax sa bopp man duma tapet te damay dem ci kanam léegi xam nga lu ma bëgg ngeen xam tonton Madické yow Madické Niang tonton di nga xam ne que bu ñu mag yow ci tere bi nga xam ne li xale di wax ne lépp dëgg la di xam ne lépp dëgg la léegi pour ñu gëm ne man candidat la dinaa leen defal ñaari mbir ngeen xam ko bés bi may ñëw bés bi may ñëw damay jaar ci buntu buntu palais lay jaar ba Macky Sall xam ko. dama ni dama ni dama ne man boo leen ma xoolee ci kaw ba ci suuf ngeen xam ne doomu Ablaye Wade cent pour cent la duma tapé ragaluma kaso te dama balaa ngay nekk président bu fekkee guerrier nga da jaax kaso ay waay daara waat di jaat fit rek ay waay fit boo ko amul doon lay waat day sa baay fit rek ay waay ay waay Karim Gaye soxla nañu la fit boo ko amul doole ay waay ndigu cooro saat ay waay am doo def ay waay teemaan teemaan lu ma bëgg ngeen xam ko sama yaay mu ngi ci terrain bi di xeex Sindiély mu ngi ci terrain bi di xeex suma papa mu ngi ci terrain bi di xeex waa PDS ñu ngi ci terrain bi di xeex Macky Sall na xam ne du man rek la ko seqal waa Sénégal la ko seqal. doomi gaynde lay doon Karim demal doomi gaynde gaynde lay doon ay doomi gaynde gaynde lay doon ay gaynde gaynde lay doon Karim ñëwal way yaay Karim ñëwal doomi gaynde gaynde lay doon ay waay ni doomi gaynde ay waay ni ñëwal Abdoulaye Wade day sa baay Karim ñëwal Viviane mooy sa yaay Karim ñëwal doomi gaynde gaynde lay doon mbégte ak kontaan bu mag di képp koo xam ne nag yaa ngi seetaan émission Kouthia Show Baye Fodé euh, Diakhaté ñu ko ñaanal fan bu gën a wér gu waaye di am mbégte contentement suba nag mooy anniversaire u euh, Aji Foss di doomu euh, ki nga xam ne nag mooy ay Ndiaye ak Foss suma xarit depuis France ñoom ñu ngi wax ne wax dëgg yàlla seen doom ji daal ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Aïta Ndour di Aji Foss de la part de sa mère ay Ndiaye et son père Foss di sama xarit ñuy am nag toute la famille Euh, toute la famille euh, Ndiaye e la famille Ndour ñooy souhaité rek ki nga xam ne mooy seen euh, doom di Aïta Ndour en attendant par anticipation joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Julie Sarr Julie Sarr nekkoon Miss Océanie de vacances ca Kaolack actuellement nekk gendarme de César Mbao sama xarit la maa ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm moom Julie Sarr ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram nekkoon nag Miss Oscar des vacances macha allah ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Julie yal na yàlla gudd fanam. démb nag anniversaire ñaaña bi mbay rek moo fa manqué woon neexoon na neexoon na trop anniversaire bi daal macha allah neexoon na trop ñuy gërëm ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëpp ndax euh, euh, ñaaña ñankoo euh, ñankoo maa di yow danga baax démb li nga def ci ginaar agneau de poulet li nga def ci cocktail yal na yàlla defal jàmm waaw li nga def ci cocktail yàlla defal jàmm yal na yàlla defal lépp mun a nekk jàmm nuyu tamit bu baax Oly Oly a Ndiaye sa jigéen sa xarit nuyu tamit képp koo xam ne teewoon nga ci bés boobu daal vraiment ndax yow da nga baax yow ñaaña yàlla yàlla defal jàmm nuyu tamit Roqaye Maane ñu naan ko daba dëkk ca Malika taalibe sëñ Fallou Mbacke docteur ak jëwriñ Moustapha Sène sama xarit yaay glace ak mbenn nekk ca Malika taalibe sëñ Fallou Mbacke docteur sëñ Fallou Mbacke docteur maa ngi koy ziar di ku baax nag ci baatin ak ci ci ci ci ci moom ku baax la koo xam ne ku mun a taxaw ay taalibeem la nee ko yàlla defal jàmm soxna Nabou Mora ñu ngi koy nuyu Mar Diop itali le ko mbay ñëw na mooy borom blanchise faramaareen ma nga Dakar yéen a ko yàlla jàmm maar yow dañ la invité fii Kouthia Show xale yi Kouthia Show ñoo la bëgg teg bët suba suba si àjjuma yow maar Diop yaay suñuy invité fii borom le ko di doomu nday Ousmane Ndaw nekk ci États-Unis bàyyi mami Soso ak Abdou Diop mooy borom branche Faramaren ku baax la nag mu dénk ko euh, ki nga xam ne mooy Moussa Gueye mu xooloo ko tamit te yàqu ci dara mbokk yi euh, Cheikh Bara Dolly mii moo remplacé ma di Niang ci post bii dama bëgg ngeen déglu ma parce que li may wax am solo Madické Niang moo nekkoon président groupe parlementaire u euh, PDS maanaam ñi nga xam ne ñooy libéro yi mbootaay googu nag bañ ko fa teggee moom bu mu tekkee ndogu tàmbam dañ ko jox Cheikh Bara yi moom Cheikh Bara Dolly bii te post boobu pour nga nekk ko il faut nga dégg français il faut nga mën a bind français di lakk français te moom ñëpp xam nañ ne am na bac plus ci arabe la ko amee mais amu ko ci français moom mii nga xam ne mooy Cheikh Bara te nag poste bii boo déggul français munoo làkk français munoo ko nekk xaw ma nag boobu ba léegi lu ko téye ci post bi xëy na président assemblée ñoo bàyyi mu mais am na bac arabe te nag discours bi mu war a def nag ko war a def en francais te tey la ko war a def léegi nag ma koy defee ca assemblée ñi nga xam yoo nekk assemblée nag nga lawaay bu leen ko ree am na nag ku ñu naan am na nag am assemblée kat assemblée dafa bëri ay reekat am na ci ay reekat yaa ngay pare jaara am na ay reekaan kon nag moom ma nga ne ànd ak assemblée ca biir assemblée nationale sëñ Bass eh, eh, eh, kii maa ngi koy may képp kuy mbàkke mbàkke nekk Touba rek may naa la bii ay ca ñu dem xool yi assemblée. ay nouveau parlementaire ay Cheikh PDS bëgg nañu la ay Cheikh ay dolli Cheikh Mbacke Baara dolli waaw waaw dolli salaamaaleykum salaamaaleykum jërëjëf jërëjëf assemblée nationale jërëjëf maa waaw waaw moom mi ci naawel ah, kenn du ah, yaaw baax na jërëjëf jërëjëf ah, moom ab la maa jël mu abana ci moom di ko wéy bëccëg junni waaw bëccëg junni junni laa ko jox pour mu jàngal ma nasaraan ndax man xam ngeen ne bac arabe am te fii ñu taxaw nii président assemblée nationale nee na ku jàngul tubaab doo ko doon loolu nag dañ ko war a xeex ndax tubaab bi bagam ak bagu arabe bi benn la ga bagu arabe bi sax moo gën ndax benn dañ ci am xam-xam dañ ci yeewu di nga mën a wax àddina waaye bagu français moom boo demee ba États-Unis doo mën a wax ak anglais yi te arabe bi moom boo demee ba États-Unis mën nga wax ak nit ñi arabe yaa may dégg kon ñi nga xam ne mooy waa APR yi xeex pour poste bi ñu bañ ma koo jox wala jox tey dinañ am leen naqari ndax tey fas naa làkk ay tubaab yu xocc yoo xam ne ko jël xam kii ab ndongo la ab ndongo la gune la koo xam ne dégg na arab te dégg na tubaab moo ma jàngal lii ci ñetti fan discours gi maa ko bind ak sama loxo <laughs> waaw kon bisimilah bisimilah jërëjëf Ablaye Wade yal na ko yàlla may fan bu gud ak wér bu loolu moom du doon président groupe parlementaire bismillahi rahmaani rahim bismillahi mina sheytaani rajim bonjour bonjour bonjour bonjour bon bon bonjour chers députés bonjour chers la assemblée nationale ah député bonjour chers députés tout court bonjour sër ah bonjour sër député tout court ah ma bàyyi tout court bi waaw bonjour sër député la nationale de parti démocratique PD l'assemblée la la la la la la l'assemblée nationale ensemble tout est derrière moi pour PDS représentant président cos Euh, je dis Abdoulaye Wade à Soissy. ah à Soissy. à Soissy. Abdoulaye moi pour vous vous derrière moi moi devant vous. moi sëñ sëñ Ablaye Wade maas moi sëñ Baara Dolli moi sëñ Baara Dolli moi sëñ Baara Dolli Ablaye Wade moi soisi ah, ah dama koy leen ma ah, may leen ma may leen ma may leen ma daaneel soisi ah kon kuy ah kon kuy wax zi waa xam nga dañ ko dama ko bind ci arab moo tax ma ko maas c'est la décision personnelle de soi soit le choix de le choix de de Maître Wade pour que pour que moi soit moi pour que pour que pour que pour mon choix pour que mon choix may leen ma tuuti c'est c'est c'est pour mon c'est pour c'est pour mon choix choix sir le choix de de de Wade <laughs> c'est pour le choix choix si du maître Wade choix si moi très bien très bien Mbàkke loo wax noonu loo bëgg noonu la. la langue française la langue française ne pas imposer parler assemblée française. moi proposer langue arabe parler arabe dans assemblée. moi moi ah. je propose ah. moi. se propose. moi se. je propose. moi sën. Eh, eh, eh, je propose. du ma jeune de ab mag laa de du ma jeune. Ah, waxuma la jeune nga de. Ah, je ah, maanaam man man maay proposé. ah waaw yaay proposé. waaw d' accord d' accord yaa bëgg. waaw neel je propose. waaw je propose man. je propose. parler arabe dans assemblée pour tout le monde arabe comprendre. waaw waaw. mooy ñoom nañ comprendre li nga bëgg wax rek. ah l' essentiel ma ne ni nga ko suuf sentir waxee ko noonu ñu mën a xam ma wax ko sa clôture sa clôture sa clôture sa clôture sa clôture sa moi parler arabe parce que man parce que man man man man man arabe moi parler arabe maintenant tout député voté pour arabe Dieu content tout député voté pour parler français. merci merci maintenant maintenant moi parler imposer parler arabe assemblée parce que arabe Dieu aime arabe français Dieu aime pas français. la arab la arab la arab Maroc la arab Algérie la arab Mauritanie la arab Arabie Saoudite la arab français la français on doit voter pour parler pour parler la langue arabe qu'on parle la langue arabe dans l'Assemblée nationale. déet man kay aw ma langue man kay tubaab rek laay langue. waaw ah, waxal li nga wax man tubaab laay langue du ma langue sax. waxal li nga sax kay doomu langue la foo xam ne man dama fay langue langue kay moom langue. ab eh, langue. waxal li nga sant. ah mais dégg dama dégg woykat bi nga langue la sawar. langue moo dégg mais waxal li nga sant. moi choisir langue moi choisir langue arabe moi choisir langue arabe ah. Parce que langue... Écoutez, moi ça c'est langue arabe. Parce que langue arabe, langue internationale. Moi, Sëñ Bara Dolly parle arabe à partir tey prochain discours. Hein? À partir d'aujourd'hui. D'or. À partir d'aujourd'hui. Pas d'or, d'or ci bisu. Maanaam tey aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. waxal bés ni ko tey waxal bés ni ko tey. ah bés ni ko tey. dégg naa ko jàng ci tubaab rek. waxal à partir à partir. d'aujourd'hui d'aujourd'hui. pas d'or pas d'aujourd'hui de. à partir d'aujourd'hui on fait la liaison à partir d'aujourd'hui wax. liaison ban. à partir d'aujourd'hui liaison. waaw à partir d'aujourd'hui liaison. déedéet pas liaison waxal à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui parlez arabe à partir d'aujourd'hui ministre APR wëneel Touba parlez arabe force cérémonie officielle ministre euh, représentant chef d'État parlez arabe force français restez Dakar arabe arrivé Touba arab arab français arab ay nouveau président ay arab arab arab am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Show di am mbégte ak contentement léegi na mbokk yi dañuy dem xool yi fi nga xam ne nag moom lañ mujjee woon démb euh, diggante Viviane ak ki nga xam ne moom Marème Faye seen diggante ña ngay def wàccaayu màggal bi wàccaayu màggal bi nan lay demee ñu ngi ko may képp koo xam ne tey nga juddu di ko jox anniversaire yi nga xam ne tey dañ juddu Julie Sarr gendarme ci Zac Mbao ancien Miss Oscar de vacances yaa moom lii sëñ saalu Mbacké sëñ Saliou Mbaye Jurul yaa moom lii Aïcha ñu seeti tante yi baa ñëw nañ ñu ngi si biti nañu egg si ah, nañu egg waa parce que liggéey bi dafa bari de bonjour ça bien kontaan naa si yéen de ñii ah, daal ngeen def ah li ngeen di waaje màggal gi neex na ça na ngeen def gi kontaan naa trop parce que vraiment gis naa liggéey bi ak ni ngeen nekkee ci terrain bi di liggéey bu guddeeg bëccëg subaak ngoon kontaan naa léegi nag dafa am lu rëy lu ñu war ci màggal gi ma bëgg nag ngeen waaj ko bu baax a baax a baax a baax a baax kenn ku nekk ci yéen rek na ngeen ko waaj am sa enveloppe a ngi nii am sa enveloppe a ngi nii waa waa Patte seen enveloppe a ngi nii Mama Mbaye seen enveloppe nii waa géej waaye seen enveloppe nii waaw waaw dama bëgg ngeen ngeen waaj préparé parce que màggal gi du lu ndaw waaw ma bëgg ngeen waaj bu lépp lu xew rek taxaw nga ci ni ci war a taxawee ak say militante kon dañ lay ñaan rek yàlla na yàgg ci palais bi yow merci waay madame jërëjëf waa kay merci beaucoup kontaan naa trop nuyu leen ma xale yi ngeen gën a góorgóorlu ndax yéen seen taxawaay am na solo tooga ñoom ñu waxtaan ay ñun moom ay liggéeykat lañu lañu moom vraiment ay liggéeykat lañu entrée tu as de la visite. nañ egg si. Euh, kii la de madame Viviane la. fi mu nekk nii damaa nekk si paas di di joxe màgg euh, paasu màggal yi. ma sañoon sax doo ko recevoir nitu ay la nitu fitna la man bu ma sañoon bilaay doo ko recevoir. nee ko nekkuma fi damaa sonn ci histoire bi. kii daal moom bu ma sañoon moom du fi dugg. nee ko nekkuma fi mu ngi noonu di insister. recevoir leen rek te yàlla. waaw leen nee leen ñu ñëw nee leen ñu ñëw ñu xoolati rek. Ah. nee ko mu ñëw. ah comme que mënuma ci dara ñëw na ba fii moo ko recevoir fii lay nekk di déconné indil ma coow. ana mun a egg si. salaam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. toog leen. egsi tata. yaa eh, <laughs> eh, may fii may toog. dañ la indi loon teraanga tuub. teraanga tuub. Mm-hmm. Ah. màggal bi. pour màggal gi waaw allah kontaan naa trop. dafa ne woon tey na ñëw rek dimbale la pour màggal gi. waaw su ko defee moom tamit sax day màggale. day màggale léegi balaa ñuy dem nag ah ñu defati rek jàmm laa pee. ndax yow fi ngay dal moom foofu lay dal. ah ndax moom miin na Touba bu baax a baax a baax nag. ma ne woon rek naa ñëw ñu indi la teraanga gi pour nga neexal néeg la neexal néeg. neexal néeg waa lii moom wax dëgg yàlla am na solo képp kuy dem màggal daal yittewoo nga ko soxla naa ko lool. ah Nova bi moom dama ci commandé woon ay kees yu bari. ma mais comme indi nga ma ko. dina gën a baax. yaa ngi pare. maa ngi waaj bu baax màggal gi. waaw maa ngi koy waaj bu baax a baax a baax. da ànd ak dal rek màggal moom fexeel ba ñëpp gis. ni ngay loolu da ngay teel a dem nag. parce que bi fi Ablaye nekkee man dama doon teel a dem. Ah. joxe ndaw kii nag yi yëpp. yëpp nga teel a joxe pour nga feex. dëgg la dëgg la dëgg la vert dëgg la. xam nga ñu mel ne ñun dañ ngeen di soxla pour conseil. Mm-hmm. yow de wax dëgg yàlla comme côté boobu moom. te booy dem pour solo solo uh, kii rek ndax dafay tànk nga muuru defar ba mu baax def enveloppe addé yi. <laughs> tata yow xam nga ni man tey li ma fekk sama kër nii moo tax ma def. déedéet waxuma rek fel felaale. waaye man xoolal damay def samay grand mbubu yu wàcc. ah def samay dagal yu baax ndax loolu la son excellence bëgg. tey indi fi jàmm démb nii nga def sama yaram wi yëpp a ngi metti gone gee xaw naa sàkk sama sax suma benn tànk bu baax bi la jàpp bu bon bi ne ci suuf tey boo fi histoire bu sa yaram wi xasan danga ko wéetoo bu yóbboo nga ma saa ba ñu dem ndax man sama yaram wi yëpp day metti ma madame ñu ngi dem dañu ñëwoon pour rek pour si. Ah. waaw merci beaucoup tata. ñoo ngi dem vraiment comme je t'ai dit comme hier rek conseil yi moom man soxla naa ko trop. <laughs> waaw bëgg naa sax nga nekk sama conseiller. di ma léegi bu soobee yàlla. waaw dinañu ñëw bu ñu ne màggal gi des na ñetti fan. ñu def ko benn délégation parce que xam naa ah, murid yi bu ñu gisee. maak yow ñu ànd ñu xam ne lépp benn la. <laughs> parce que jàmm ci la lépp xaj. yow amoo benn problème ku la indi problème rek moo indil boppam problème. ndax yow ku baax nga. yi may def yëpp. di tooñ di yow mosoo ñoo baalu ma man rek may baalu. Ah, man nag sama tataanga moom. maa ngi maa ngi dem dégg yéen a yàlla defal jàmm. amiin ñu màggal ci jàmm. amiin amiin ak salaam ak salaam waaw amiin. <laughs> bye bye. déggoo li ma la wax nan dem. au revoir waay. tata au revoir nuyu ma waa kër ga dégg eh. bye bye tata tata au revoir. nan la ah? maa la koy wokkal tey damaa sonn. na la wokkal. man naa ko yow tey ki nga wokkal bàyyi ma man j'ai plein de choses à faire. merci ah. lan moo lay mer la. man du mer. man du ma mer yàlla ma bindee noonu. ñu dem dem. au revoir tata. bye bye. génn. mu génn pale bi sama xel mi gën a dal. madame Mengue li gën ma kii mu génn pale bi Ami fu mu baax na ba suba. incha allah ah, man maa waaru.